Kalau pikin bi le du ma la wax Desan. mu tudd ndeysaan mu nga noonu mais pikin la ware ak nga yoo xam ndeysaan moom moomu le sant Sarr ndeysaan jóge ca fi nga xam ne mooy nga ji mu Desan noonu ndeysaan moom Modou Sarr doomu pikin la ndeysaan ak ki mooy Ngayo Xeme moom moomu la waaw waaw waaw waaw ko gis di ko ana mbër ba de ndeysaan moom moomu la doomi Pikine ji la Modou Sarr a doomu Kalom la ndeysaan ak ki nga xam ne moom ngay xem héhé mu nga noonu mu ngi koy rëdd dëpp na dëppar ñi de mu ngay dëpp loxo ba di dëppar ñi de Modou Sarr waaw waaw